daleen ak jàmm mbokk internet yu seen njëriñ TV wax ci Bassirou Diomaye Diakhar fay li nga xam ne nag ñoom ñooy wa waa CEDEAO ñooñu le moom Bassirou Diomaye Diakhar fay nag dañu ko bëggoon a jël rek ngir mu jiite CEDEAO boobule comme ni ñu koy defee à tour de rôle président sénégalais bi nag moom dañu ko courtiser woon ngir mu jiite organisation boobule ñu ne nag profil bi présenté nag moom profil bu baax la wante it candidat idéal la ngir rekk ñu daal di dakkal crise yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci biir yi réew yi bokkee ci CEDEAO moom nag deful lenn lu dul bañ ba tëdd loolee ni mel bu ñu sukkandikoo ci kàddug Africa Intelligence ñu ne scénario boobu de nag moom mooy lonf ndax nag kii di Bassirou Diomaye Faye moom nee na duñ ko def information yo yak ñu magazine Africa Intelligence Bassirou Diomaye Faye président sénégalais bile a décidé rek décliner proposition pour plusieurs capitales manam capitale du Brésil ouest africain ngir nak mo porter candidature bu présidence bu communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest di CEDEAO pourtant de turu Bassirou Diomaye Diakhar Faye nak dañu ko région yu bëri wante wala sax dëkk yu bëri ci CEDEAO ñoom moom la ñu tànnoon ndax profilam bu baax ndax ku jeune la ndaw la dynamique na te potentiellement nag mën naa yombal retour ay état yi nga xam ne dañ leen suspendre lu ci demee ni ki Mali Burkina Faso wante nag candidature francophone séduisante boobule nag boobe théoriquement ngir ñu ñëwaat ci biir francophonie bi dëppoo ko lii di alternance bi ñu tëral ci biir organisation bi bu ngeen antu

ci biir CEDEAO boobule dafay pesé bu baax ci balance bi ba tax nag mu poussé ko ngir nag mu daal di bañ boobu le opportunité bañoo ko ba Bassirou Diomaye fay nag day bàyyi rek voir bi mu ubbeeku ci ki nga xam ne moom mooy boola Bola Ahmed Tinubu mi jiite lii di CEDEAO buy nekk it actuel président bu Nigéria

du am effet ndax euh, intérêt limité la ci état membre yooyu le ñu ne dirigeant yi comme Patrice Alassane watara wala Faure Gnassingbé bu fekkee dañoo éligible nag ñoom wanewuñu intérêt pour poste boobule ci loolee nag bu fekkulee amul le rebondissement bu dernière minute mbanda bu bees bu Bola Ahmed Tinubu ci bopp CEDEAO loolu nag dinañ ko profilé mu nekk perspective boo xam ne day euh, conclure rek ne day accueillir sans grand enthousiasme ñi di membres organisation régionale boobule leeral gi nak liñ ko basé wu ci information yu ñu qui ci magazine bi di Africa Intelligence muy le défi ak li nga xamné mom moy alternative ngi entouré ci choix wu prochain leader bu instance spéciale boobule jëm nak ci stabilité bu intégration bu Afrique de l'Ouest ndax loolee day wane rek ne lii di Sénégal moom dafa bëgg raxasu ci CEDEAO ak lu mu ci demee ñu ngi toog di xaar ndax ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye kat bañ na ne du jiite lii di CEDEAO woo mu xam ngeen ne nag kii di Macky Sall moom nekkoon na njiit li